salaatun malaki ma xam ni lii lu yàlla du yonent bi lu ci dul moom te arrêté ko loolu xaw ma ko gisuma lu gisuma lu ay wax nag bu baree borom juum waaye dëgg yàlla su ma sañoon ñëpp dañuy bokk ndey ak baay man jàmm ak salaam laa bëgg kenn ku ne li ma ko yéene yàlla ma ko yàlla jox sama xol man loolu nekk ci loolu te jeyuma kenn ragaluma kenn ba bari bari ko jey te jey wax ju amul la te wax ju amul man naa yóbbu nit ba bu ëllëgee day yenu yi loxoom ndegam dina ko talu dañ koy njoñ yóbbu ko sawar yal na nu mucc ca lool lépp lu fi juum yal na nu ko yàlla jéggal bàyyi juum jërëjëf man day kontaan naa yal na yàlla kontaan ci barke alxuraan kon noo ngi joxe ñaan yi bu fekkee juum naa ba tey ngeen ngeen dese keneen ngeen wax ma ko waaye guddi na te ñii ñëpp dañuy dëkkuñu ci dëkk bi ndeysaan man ma sañoon ku egg rek danga may woo ma agsi naa ci jàmm ak salaam ba ma xam ni yàlla defal nañu jàmm ak salaam ab am nen sax tojju fi lu may jàmm ak salaam jàmm ak salaam kon juboo nañ ci mañaan nu dem fatiha ak fàllax ak naasi ak julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa te lépp looy def rek te jiitaloo yéene loo sonn sonn yàlla faalewu ko inamal ahmaalu xamal ni yow mi bëgg lu baax jëf ju mën a moon doon mën a doon rek bindiyaati loo mën a bu bëgg a def ak loo def daal bi niyaati na yéen a jiitu jëkk bu ko defee loo fa juum sax yàlla baal la ko ci yërmande kon faatiha ji ak fàllaxi ak naasi lu baax doon mun ci jublu yal na yàlla defaral réew mi ak réew yépp ci barkeb alxuraanul karim yàlla bu fi jàq yàlla bu fi musiba jàmm ak salaam rek kon nag innama al ahmaalu bi niyaati wa innama li kulli imri ma nawa faatiha ak fàllaxi ak naasi ku ko mënul nag ngay wax amin amin mii dafa foor loolu moom asalaamu aleykum mën naa cee faral wala mu guddee ci waaye eh, eh, nit ñi dañoo am àq xaw a soxla seen bopp nag te farata ñi jeex waaye lu ci rëcc rek te manque yàlla nañ ko yàlla defaral bu ko defee ku mënul na ngay wax amin amin moomu dafa baax a baax du juróomi araf la defe na arafu arafu ci nekk tur turu yonent lay junj la nga cay nag di ko wax amin rek loo wax amin rek te xamoo lu mu ku ci jógee te xamoo lu mu mbaa nga xam ci loo mën a jariñoo bu ko réyee laaj yi sa moroom yëpp yëpp tur yooyu yëpp Idrissa ibrahima yunus e, muhammad yonent yàlla nooyi boo ne amin nag yàlla kenn du ko wax ne defal ma damaa xam ni kilifa yi sax boo leen woole wooyee fi mu ne sekk ki yam nga yem ca ki ngay jëkka jot yem ci moom ah boo ko waxee waxee ni ministère a ngi fi nga ne waaw jox ma ko kenn du wax loolu li ñuy wax xaw ma Chine yu pale xaw ñu ko nu moo te boo ko moom waxee ni tegginu daal sëñ baa ngi fi waaw jox ma ko ñu jox ko ko mu ci yarak tegginam moom it moom lay waxal waxi nu rafet waxal bi moom dalay daal ni ne waaw yal nañu yàlla jubaleeg boppam ak rawaanam yi wax waxin yoo xam ne buñ juumee it xam ne fekk na yàgg naa yàlla yàlla yàlla na nga nu nungul sunu ñaan yi ci barkeb amiin amiin moom ci barkeb yonant yooyu la lañ ciy jublu am na leneen lu ci nekk waaye laa sori dañuy nekk ba beneen nag jàmm yàlla nañ ko fekkee waat ci ngeen a nu gën a sawar ci ameen Faatiha ak Falaq ak Naas yi ñu naan yàlla jàmm ak salaam nu fekk waat ko fi ay yooni yoon ngeen bii nag ñëpp saf waaye saf na ma yow itam del ñëw toujours dégg waaw waaw kon bismillah ko defee ma ñaanal leen bu ngeen gën a taamu rek nag as ndigal daana ma digal na ma waxal nangam ak nangam ma ndax xaw ma ndax loolu jar naa wax wala déet nee nañ boo ko doon jàng fi mu ne sax ci ku gëm laa wax de ku gëm rek ku gëm boo ko dee jàng ñaan googu nii loo fi taal du tàkk ku ko weddi nga yor sa almet seet buñ koy jàng moo koy jàng nga koset sa almet ba xam dina tàkkam déet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 بسم الله الرحمن الرحيم كفاك ربك كم يكفيك واكفة كفاك ها من كميم كان من ملك كفاك ربك كفيل كافي في كرف من كوكب كان يكي كوكب الفلك تقر كرم ككر الكار في كبد تهكم ساككة كأكل كيل كلكي réew mi yàlla bu fi bal tàkk ak réew yi jullit yëpp yàlla bu mu fa taybatil harami seydul wujoodi ku fi nekk ñëw yàlla na la yàlla fay yiw te itam yàlla na মালাকে